Euh, li tax ma doon ko tamit mooy ginnaaw seet nañ ne dëkk bi moom jéego yi muy dox daa daa gaaw te li ko war a gunge ci li doomu aday doomu aadama yi mënta ñàkk doxin wi muy dox dafa yeex te ñun ñëpp mën nañoo seetlu yi nga xam ne moom lañuy gën a yittewoo ci doomu aadama mënta ñàkk nga xool dox bi nga xam ne moom la ci nguurug senegal di dox bu may wax nag nguur tudd jubluwuma ci genn nguur moo xam gu fi nekk la wala gu fi nekkut Euh, euh, li ma ci jublu rek moo ñu xam relation bi war a am doxin bi mu dox dafa yeex bu ngeen seet loolu mel ne wàllu assainissement projet yi nga xam ne nguuru Sénégal jot na ko def Touba nga xool kañ lañ ci njëkk def benn boobu bu ñu ko defee nan la tolloon ñaata at lañ toogaat defaat beneen projet ak bañ ko defee nan la toll boo xoolee diggante yooyu nga xool ni mu yéexee ak quantité bi ni mu tuutee da ngay xam ne kon jéego yi war naa gën a gaaw bu ñu xamee ne nag léegi jéego yi war naa gën a gaaw. Euh, te gaawaay bi mën naa am doo ko mën sintoo ci nguur gi ndax moom lim yor Sénégal gépp ko bokk te Sénégal bokk ci dëkk yi gën a néew doole kon li nguur gu yor du matale benn dëkk ci senegal ndax lim yor matut waaye nag li ci anam gi ñu koy séddalee du anam gu maandu ci dëkk yi ndax dëkk bu mel ne tuubaa nguur yi fi jaar dañ koy jàppee dëkkub diine ba léeg-léeg projet yi fi jëm sax projet yi diine lañ koy tuddee waaye duñ ko jàppee dëkk bu mag boo xam ne nangami nit dëkk nañ fa kon war naa yayoo lii ginnaaw bu fekkee li fi nekk doyut nag anam gi ñu koy séddalee mandu kon day mel ne dafay gën a yeex kon nag ginnaaw naka jekk taalibe yaa ngi dugal seen loxo ci dëkk bi dugaliin woow wi kon la ca def mooy nofin wi waaye ak ban relation la digganteem ak nguur li mooy ñaare nguur dafa baaxoo fiir ci geneen kuréel gu ne ci wet di doxal euh, jamonoy Serigne Saliou bi Serigne Saliou génnee ab lim bu takk ciy koppar fas yéene woon a taxawal assainissement dañ ko ne kat lu ku ko bëgg a def ci dëkk li ci gën mooy mu jaar ci nguur histoire booba ñu bari xam nañ fan la mbir moom mujjee ak nag demee loolu nag da cee bari loo xam ne ba léegi nii mooy am tey nga xam ne boo yëkkatee bëgg a yëkkati bëgg koo def faw benn nguur gisal ko boppam noonu wala nit ñi gis ci gis-gisu fiiraange diggante nguur ak ki ko bëgg a def bu dee dëkk bu mel ne Touba nag dafay spécial mooy li ñu doon wax léegi foofu la wuute gi war a nekk li tax loolu war ñoo mën a dimbali te ñu te muy point bu mat a bàyyi xel mooy ne lu baree bari ci liggéey yi nga xam ne ab dëkk yi teewoon na ko moo xam ay yoon la moo xam ndoxum naan la ndoxum taw mi lijjanti ko wàllu njàng ak yeneen ak yeneen lu ci baree bari lu lu dëkk bi war a euh, yittewoo jéego yi ñu war a mën a def ba àgg ca ak amal ko ñaare dañ koy réyal réyal boo xam ne boo doonee ab citoyen simple nga xam ne loolu du sa mbir yow euh, defoo ko yitte gëstuwoo ci da jàpp ne loolu moom daa rëy rëy ba buñ la ko tuddee yow da ngaa war a ndax loolu kenn attanu ko te fekk ne fañ koy yéegal ci ab kaayowaay ci alal ak la koy taxaw yooyu jegewu faa àgg te loolu dafa mat a bàyyi xel jegewu fa àgg ndax euh, lii tax loolu mooy léeg-léeg dañ naan liggéey sangam wala mbir sangam wala projet sangam yu amee nangam dayoo loolu nguur rekk ko attan te fekk ne xëy na kuréel gi koy def ñay liggéey ca nguur ñooñu mën nañoo ñëw liggéey ci biir kuréel googu mën naa ci joxe exemple travaux d'assainissement yi Touba ca kanam doon def am na ci ay membre ci wàllu ci wàllu ingénieurs yi ñu ci doon liggéey ñoo xam ne ñenn ñi ci état la ñuy liggéey ci projet yi gën a mag ñenn ñi ñu ñu liggéey ci société yu mag yu état moom ba retraité moom la ñu waaye teewut mbubbum dañ koy solal ne am na kuréel goo xam ne ñoo koy def amaana liggéey bi teguwul ci xam-xam amaana amaana yooyu na dafa bokk ci yi nga xam ne dafay gàllankoor dox yi ñu war a dox ngir baral jéego yi ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu koy dund nii euh, beneen bi ci toppaat tamit mi ngi jëm ci bàyyilu xel tolluwaay yi nga xam ne danañ xam ne mi ngi ñëw waaye duñ ci am taxawaay yi ko yi ko yi mu laaj ngir gàttandu ko euh, ñaata at la ñëpp yàgg bàyyi lu xel ne màggalu Tuubaa yii di ñëw ci biir nawet lay doon ñu di ko wax di ko wax di ko wax ba màggal gi dugg ci biir nawet ba fi mu ne nii ak fi ne ci digg nawet bi ci wax waxtu yi nga xam ne mooy ëpp taw te mooy mois d'août te ba léegi taxagut wax wax wax googu ñu ko doon wax ñu waajale ko lu toll noonu léegi ndax kon buñ demee ci fukki at yi ci suñu kanam buñ ci yàlla yàlla yóbbeeg jàmm muy 2033 wala 2043 wala 2053 boo dee jël 30 nga boole yii nu wax nii dolliwaat ci croissance bi doon naa ko laaj sëñ Mbàkke Maaraam yi naan ko dëkk bi bu ngeen di xayma ñaata nit ñoo fi gane àdduna par at ñu koy xayma ci cinquante 000 nga dolli ci li fi dëkk fi dolliwaat ci dolliwaat ci lim boobu di yokk màggal Tuubaa ñu ne ren mi ci cinq millions wala 5 millions et quelques croissance bi di yokku buñ demee fukki at ñaar fukki at fanweeri at fan la ñuy toll. bu boobaa lu jëm ci wàllu transport lu jëm ci wàllu lekk ak naan lu jëm ci wàllu fajukaay bu fekkee rythme bii ñuy doxee moom la ñuy doxee bu boobaa lan mooy taawu dëkk bi loolu mooy lëndëm gi ma doon wax léegi ci sama kanam naan xam naa lëndëm ak man ndax boo defee boo xoolee rek nga nga évaluer 30 ans wala 40 ans wala 50 ans yi suñ ginnaaw ni dëkk bi doon yokkoo nga xalaat par rapport ak yokk gi ci kanam ak ñi nga xam ne loolu moo ko war a gungee ci li nit ñi soxlaaw buñ baralu jéego yi bu ñu demee ba màggalu 2033 wala 43 yàlla nañu fi yàlla bàyyi ñu fekkee ko bu boobaa naka la ñuy def ba mbooloo mi ñu mën leen a ci dëkk bi ñu màggal fi ci jàmm delluwaat ci jàmm gis-gis la boo xam ne dafa mat a bàyyi xel te lii tax nga man cee am bàyyi xel mooy lu mel ni jataay yu mel nii ba conscience yeewu ci bu ko defee nag ñu mën nañ takkatoo boole doole yi dugal ci suñu loxo te bañ a xeeb li ñu ciy def li tax may wax may wax bañ a li ñu ciy def mooy euh, yaa ngi wax léegi création de recherche fexe nu ñuy def ba am koom am te bañ a yem rek ci laaj bi te Touba am ay mbir yoo xam ne fi mu ne ñu baree bari ñu ngi ko mal di ko njëkkante ngir bëgg jël koom moomu dem yóbbu ko ci seen ci ci ci seen i gox jariñoo ko boo jëlee ndoxum naan mii tey jii nii ñaata projet ñoo fi ñëw di waxtaan di xëccoo ci bëgg a jot ci ndox mi ngir li ci ne ci ak ay koppar dafa bari te dafa nekk jafe-jafe boo xam ne àgg na ci li ma doon wax léegi naan mbir yi projet yi buy ñëw dañuy dem ba yittewoo ko ba amatuñ ci pexe nga xam ne bu ñëwee daanaka dañuy àgg ci nu mel bëgg nañ bu ko defee mu daal di ñëw te fi mu doon ndox mi xaw nañ ci àgg foofu bu ñu demee ba àgg mel bëgg nañ projet mën na fee ñëw boo xam ne ki ko fi dugal moom xaalis da koy tax a jóg mu wut si xaaj dem yoonam bu boobaa nag dëgg la mën ngaa am ndox waaye mën ngaa am ndox mu cher ba pare mën ngaa am ndox muy faral di am yi jafe-jafe ba tey ba cay toppaat mooy la cay juddoo ci koppar moom day delluwaat ci ab dëkkam wala muy delluwaat ci am réewam te loolu te ndox moomu mën naa créer ay yu baree baree bari ci dëkk bi waaye mën naa créer koom mu bari mu dellusiwaat ci soxla yi dëkk bii nii wax nga léegi bay wax la deux cent cinquante mille parcelles bu fekkonte ne kër gu nekk weer wu dem mu joxe ñeenti téeméer loolu at mën naa génne 6 milliards bu dee lu jëm ci wàllu gestion mën na koo toppatoo ndax fi mu nii ni ñu doon wax bi ngay tàmbali léegi li nga doon wax ci dëkk bi ak ni ko sëñ bi sancee woon ak li fi jot a am nii ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu diine téeméeri juma ak juróom fukk ñaari junni daara ak yeneen yeneen yi nga xam ne mu ngi jëm ci wàllu diine ak lislaam yooyu yëpp dafa fekk ne waa dëkk bi ñoo ko yoral seen bopp di ko taxawul seen bopp yi nga xam ne nag la jafe yi nekk dëkk bi yoraluñ ko seen bopp mooy yi ñu doon wax léegi moo xam ndoxum naan la moo xam assainissement moo xam leneen te euh, yooyu jàpp guñ jàpp ne waruñ koo mën a yoral suñ bopp moo tax mu amuk cooxe te lu luñ gën a dem nag day gën a tar ndax dafa am liggéey yoo xam ne loo ko gën a yeexee mu gën a diis gën a jafe gën a cher gën a compliqué Paris ba euh, Napoléon di jël euh, benn architecte defe naa bu ñuy wax Haussmann Haussmann lañ koy wooyee ngir jox ko Paris mu redressé waat ko booba daa fekk Paris daa lëj Touba nag yàlla defal nañu tawféex bu dee ci wàllu urbanisation tegu na ci yoon waaye nag natt bu njëkk ba loo gën a dem mu gën a lëj buñ ko teelut a gàttantu lijjanti ko day dem ba àgg faraw fa Paris àggoon te bu boobaa la lijjanti woon Paris mën na ko bañ a lijjanti donte fii nag lu ëpp la am pare ngi fi waaye lu ci mën a xew gis-gis bi dafa war a sori euh, bokk na ci sëñ sëñ Modou li ñu war a li ñu war a gis moo ñu gis ne Touba kat ne nii ñëpp ngi jàmbat tàngoor wi ñëpp ngi jàmbat jafe-jafe climat bi te pourtant dëkk yi nga xam ne dañoo am vision bu sori Arabie Saoudite gis naa ko fa Saoudia dañu naan ñoom de fii ak 2030 wala 2040 bëgg nañoo jëmbat milliardu garab wala millions yi garab Chine amoon na fa ngir xeex désert xam ne da nga am projet bu mag tàmbali koo teg di ci dox nga xam ne da nga naan bu may àgg ci 2043 température bi ma ko fekkee ci degré bi dinaa ko wàccee ba ci degré bii taw bi bu ma fekkoon mu daan def nangam danaa ko fexee yokk loolu nag xëy na lu global la waaye Touba da cee war a bay waaram dama ciy jox misaal ci wàllu googu rek waaye yi ñu a joxe ci yu baree baree bari la bi ci toppaat dama ci jeexale mooy ne yi ñu doon wax yépp nga xam ne bu yàgg yàgg la ko mag ñi daan xalaat di ko bind xalaatkat yi di ci xalaat ci ne dëkk bi mënal na boppam lu bari waaye faw ñu nos ko faw ñu organiser ko bi yàlla dogal ne nag ab organisation judd tudd Touba kanam li ci li ci li koy mën a dimbali ba mën a ba mën a am auteur ci liñ koy xalaate moo ñu bañ koo xoole ay jëmm waaye ñu xoole ko ne ñépp a ko bokk Serigne tuubaa rek lañ ci war a gis te loolu nag ngi tàmbalee ci ñi yor Touba kanam xam waruñ seen bopp waru cee feeñ ndax bu ci feeñ rek dañ leen koy daal di moomale te bu ñu leen ko moomalee mu taxaw euh, waaye nit ñi tamit bañ ko xoolee bët boobu ñu jàpp ne dañ ko war a toppatoo dañ ko war a suuxat dañ ko war a dimbali ba yaakaar ji ñuy am ci at yi ci kanam mu man cee taxaw ndax tey jii xëy na boo nee woon jumaay Touba ji nañ ci def bayaan soññee ci Touba ci kanam am na kook danan la xanaa da xaru loolu nes koy waxee te fekk ne dara gën ko waru ko gën a doon farata waaye nag bu fekkente ne dañoo gis ne am Abdou Fatah Gueye wala sëñ Abdou Lahad moom sëñ jiili ñoom ñoo yor Touba ca kanam bu boobaa du jàll waaye buñ gisee ne ci ron Cheikh Mahamadul Muntaxa la nekk te moo ko yor moo koy taawul liggéey bi mu nekk ci loxoom di doxal bu boobaa loolu mën naa nekk te mën na nekk ci jeneen jumaa maa ngi wàccee foofu kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah